waaye xule déggal loolu avertissement Diène Diouf Kairé avertissement Jacob Baldé ku ne benn na leer balaa soufflé arbitre soufflé na combat ba Diène ak Jacob Diène à droite Jacob à gauche ee eh ma lébu yow waaw ana waa Yoof waa Bargny Géej pied gauche Sako Baldé pied droite Mbagnick Kaïré ay doomi mbër ngeen cey loolu cey ji lamb ju neex arbitre bi wax na ak ñoom bëreeguñu doomi Ama Baldé ak rakki Diène Kairé bu la neexee wax loolu Jacob Baldé magi Ama ko jur ndem si yàlla ji Papa yal na ko yàlla yërëm xaare ko aljana ba tey bëree guñu de gul bëre leen Zakob amaay sa baay kon sa lamb war naa miti mañi kayre jën kayre jën kayre sa mag booy kayre sa baay waaw yow it sa lamb kon war naa miti yéen ñaar ñëpp a doon bëree waaw juddu nge juddu fekk ngeen li ci kër gi bëre leen waay eh doori na ko Jacob dox na doori ko Jacob dox na doori. cey làmb Sakop ñu ngay xeex ñu ngay xeex Jacob a ngi tàllal loxo Jacob di ko topp bilay Baba Diaw tey li nga def neex na amateur yi amateur yëpp kontaan tey cey loolu dooraat na ko de mbañik daa mel ni xeex bi est-ce que yaa ngi gis xeex bi mbañik xeex bi ndax yaa ngi koy gis bu baax Mbagnick est-ce yaa ngi gis xeex bi cey loolu waaye Baba Diaw a mën a boole waaye kenn du Abdou Lat boo xoolee arène bi ci suuf fees na dell ba gaa yéeg ci kaw cey làmb waaw waaw waa loolu wayu làmb la eh Papa Ndiaye ay dem ndeysaan sànni na ko laaw faw ngeen xeex dóor mu daanu arbi eh amateur yi kontaan nañ daw na jël ko mu génne ko mbañik tibbi woon na tànk Jacob génne ko boo xoolee ñoom ñaar ñëpp mën a bëre bi combat du yomb de maa la ko wax xulle

doori waat na ko une deux daa mel ni moo gën a gis xeex bi Mbagnick Jacob a gën a gis xeex bi daa mel ni mbaa doo génn saaku bi Mbagnick kayra jege nga saaku bi dooraat nañ ko laaw laawu droite dooraat nañ ko foo jëm bul génn da nga jël avertissement ah eh, ay kontaan nañ ay xulle combat ngi déggal amateur ya supporter ya gaa yi guerre la ñu bëgg troisième avertissement Mbagnick Kaïré boo xoolee daw na di ko ngi koy gëdd Jacob ba koy xëcc bësaat Mbagnick mbaa doo am nga troisième avertissement Mbagnick Kaïré da ngay génnaat dañ lay aaway ee waay jara fal lay doomu fal lay kicce bu ko ñamal kicce dem rek saa dañ koy duma daan dañ koy de barki Mouhamed dañ koy bi jeexagul dañ koy lu leer laa la wax kii waru woon Jacob booy mañi kayre waru ko woon sax jël du làmb bu xeexee mu duma ko bu bëree mu jàpp ko daan du yàgg sax bu dawul combat bi day wori ma ma ma loo xamul dañ koy dóomu daanu. dañ koy dóomu daanu daanaka da nga ne di nga ma wër. soobee yàlla. ah Mbagnick combat bi boo ko bëreewul jóg fi du baax ci yow parce que bu temps bi jeexee da ngay ñàkk moytul xeex bi moytul xeex bi ñu ngay xeex ñu ngay xeex ñu ngay xeex. waaye lamb yëngu na waay jël na ko mu génne ko ee eh, mbañik jéngu na de mbañik a ngay aaway ku bëgg a dee wequ mbañik a ngay looloo fi des de wasin rek maa dem tool miita ee eh, komba ngi waaw waaw waaw waaw ndeysaan doxal waay waaw waaw nga def neex na de gis di ambiance rek di foo waaw nga jóge waaw maay borom tus tasar ma fiya tus tasar baa ngi nii xale tu feccul neexul ak Serigne Sarr tur bi nan naar Marème Naar noo tudd Mbagnick Kaïré xool xaal bi boo xoolee Gamou Gueye moo toj xaal bi soq moo saraxe lii cey lamb xool xaal bi xaal maa ngi ñëw maa ngi ñëw. ante jeex na Jacob da koy gagné Jacob da koy bañ a ah cinq avertissement Jacob gagné na combat ba. Jacob combat ba maa ngi lay delloo ziar. bi ni mu jeex. waaw ni mu jeexee neexuñu mais def nañ lu ñu waroon. moo am cinq avertissement man ñaari avertissement rek laa am. lan tax nga koy dàq muy dem ci saako. Ah, waaw xëy na xëy na loolu moom la mais du waaw ñu ngi sant yàlla bu lan moo tax bëree woo nga xeex rek. non kon ni ñu koy waxee sax lii la. nangul bëre teel teel teel. waaye